asalaamaaleykum man maa ngi tudd Ibrahima sekk maa ngi nekk jëwriñ ji nga xamante ne mooy lëkkale ñii mbootaay gii def mbay mu sell te mucc ayib képp koo xamante ne baykat yi koy def ñun mi ngi ci kuréel googu man nag maay nekk ki koy lëkkale tey li ñu fi dajale nag mooy fexe ba nga xamante ne coppeeku coppeeku jaww ji nga xamante ne léegi dafa am jeexital ci dunduk doomu aadama ñu koy wax changement climatique loolu moo ñu fi dajale tey ñun nag waa FENAB dafa am benn mébét mu ñu tënk mébét boobu ñu ngi ko dugal ci li nga xamante nguur gi moom la ne fas na yéene def ko ndax nguur gi ba mu demee ci weeru décembre ca Paris am na mébét moo wax ne moom def na xët moom def na man bëgg naa def lii ci coppeeku joppeeku jaww yooyu ñun nag ñu bëgg a bay suñu wàll ci waar léegi su ko defee léegi loolu moo ñu fi dajalee li nga xamante ne moo ñu ci jublu mooy ñu fexe ba nga xamante ne fépp fu garab ne. ñu sàmm ko aar ko muy ci biir taax yi muy ci biir àll bi ñu fexe ba nga xamante ne boo doxatee fii euh, euh, dëkk bu mel ni Thiès rek ci misaal foo tourné ay garabu meññeet da ko gis foo xamante ne léegi meññeet yooyu danañ ko jëriñoo ci wàllu dund ci wàllu léegi lépp loo xamante ni itam mooy wér-gi-yaram waaye dana tax ba nga xamante ne dana defar li nga xamante ne mooy jaww ji ndax léegi euh, boo déggee ne coppeeku coppeeku jëm yu changement climatique li ko def mooy loxo doomu aadama la ndax kat yàlla am na niir wum def mu tiim ñu niir woowu ñi ngi ko tuddee couche d'ozone couche d'ozone boobu loola tey jii jeexatalu liggéeyu doomu aadama muy oto yi ñuy dawal muy daamaar yi muy usines yi coolool yi ñuy génn dafa dem di def ay mënat mënat ca foofa nga xamante ne moom mooy couche d'ozone ba loola nag moo tax ba Euh, niiru jant bi ñu koy wax rayon ultraviolet du soleil mu tàmbali di dugg si ci ñun te doomu aadama attanu ko loolu moo tax ngeen gis na mu ngi def ay ay ay ay ay yolnde di def léegi léegi mbënn mi waaye itam danay faagaagal ay doomu aadama gi dégg ngeen ay tsunami ndax glace yi nekkoon ci kaw suuf yëpp ngay seey jibuli géej géej googu di ball di di di lor doomu aadama yi dana dem ba nga xamante ne dana def sax ndànd foy foy ci suñ suuf si wàññi taw yi loolu nag bon war nañ loolu nag mooy jeexatil bi nga xamante ne moom mooy jeexatalu tey jii xët wi FENAB taxawal ngir léegi fexe xeex ak coppeeku coppeeku jaww yooyu waaye ma ngi ko tàmbalee nag ca roy li nga xamante ne mooy suñ borom na muy def suñ borom li ñu seetlu mooy du def benn wirgoy mbay suñ borom fu loxo doomu aadama nekkul dana am garab gu njool garab gu diggu doomu garab si ngajj warale wirgoy mbay si ndax xojox mbëri càddaar lépp ak léegi euh, euh, lépp loo xamante ne mooy ay rab danga koy gis foofa loola nag mooy dundal loola nag dañ koo war a roy tey jii nii lañ ñu indil ne mbay moo xamante ne mooy mbay mu bees agriculture moderne moo yàq loolu yépp ñu indil ñu ay tooke indil ñu li nga moom la ñuy wax engrais chimique ñu indil ñu ay poson yoo xamante day lor doomu aadama yu indi ay accident ñu indil ñu ay herbicide yooyu yëpp nag mën naa ñàkk ne léegi bu ñu lëkkalee mbay mi ak càmm gi ak sax napp gi loolu la nga xamante ne moo ciy tukki di suuxat suuf si loola mooy tax ba ñuy am suuf yu baax suuf yoo xamante ne loo ci bëgg mu am gàncax bu ne mën na faa ñor loola nag lay tax ba yow sax doo soxla jëriñoo poson ndax gàncax yi dañuy am doole ba sax lépp loo xamante ne moom la ñuy ñëw di ko jël si ci gàncax boobu day nekk lu tuuti loo xamante ne nit ki war na koo mën a muñ te waaye ñooñu ruur yooyu dañoo war a dund nañ leen bàyyi xel su ko defee léegi nañu fexe ba nga la ñuy jël du bari léegi la ca ñu jëf ñu ko su ko defee nag ngeen yi jawee nii mën a am dund gu doy dem ba nga xamante ne la daan waxambaane di def ci jamonoy maam ñuy am maanaam boo lekkee ci ndab ba mu yàgg nga dem ca ndabal maam sukkandiku aw aw ñetti ñaak yu yu rëy su ko defee léegi boo boo boo demee ma ma mën a féex waxambaane yi génn yeeg jawe nii nag ñoom loo xam nañ ko ñoom loolu dañ ko daan def FENAB yàgg nañu di wax ak nguur gi ngir mu mën a soppi anam yi ñuy bayee hmm. eh, dafa mel ne nag dégg bi ñu leen war a dégg daal des na waaw léegi nag xëj na bu njëkk desoon na waaye fu mu ne ñi ngi am nañ yaakaar bu baax a baax ndax nguur gi léegi fu ñu xew xewlee tey woo leen ñoom ñooy ñëw jiite si ko tey jii dañu gis ne ministre agriculture dafa yónni ki nga xamante ne moo fi toog moo ko toogal fii ki kees muy DRDR bi directeur bi ñëw léegi jiite mbooloo mi li gouvernement bi fas yéene def na it wax nañu ne gouvernement bi fas na yéene jàppale ñu ci li nga xamante ne liñ naan biofertilisant wala boog biopesticide yoo xamante ne léegi ay xeetu dundal suuf la wala boog aar gàncax bi te nekkul lu doon poson léegi loolu ne ne danañ ci jàppale ba mu doy ngir ñu mën a dooleel suñ mbay mi ñaareel bi mooy gis nañ ne ca gannaaw fii mook FAO def nañ fii waxtaan wu mag woo xam ne Afrique yëpp ak àddina bi daje nañ fi ci wàllu agro écologie ci ñun loolu lañuy dooleel ñetteel bi mooy gouvernement bi am na liñ naan plan national de lutte contre les changements climatiques mébét moo xam ne daf ko bëgg a def ngir léegi xeex coppeeku coppeeku jaww yi ñun nag FENAB dañ ne ci loolu ñun nañ ci dugal suñu loxo moo tax ñu def benn mébét boo xamante ne fii ak juróomi at la te la ca gën a fees mooy bëgg nañu. at mu jot ci juróomi at yooyu ñu def juróom fukki junney garab ñu jëmbat ko ndax garab moom moo dafa baax ci lool ñaareel bi bio biogaz bii nga xamante ne mën nañ cee am safara waaye mën nañ cee togg waaye mën nañ cee def léegi te luy dundal suuf si muy engrais biologique loolu yëpp ñu def ko ñu fexe ba nga xam ne ndaw yi am li ñu naan ay léegi liggéey yoo xamante ne du yàq mooy emploi vert ñu fexe itam ba nga xamante ne lépp loo xamante ne mooy mbay mu sell te mucc ayib gën am doole ci biir euh, Sénégal loolu ñun moo ñu tax a daje tey te am yaakaar ne nguur gi danañu ci jàppale ndax ñun ñun nguur gi lañuy jàppale ndax nguur gi mi ngi bëgg askan yu am wér-gi-yaram mi ngi bëgg fexe ba nga xamante ne nit ñi dund dund gu sell te nag ñun li ñuy bay mooy mbay mu sell te mucc ayib amul tooke baax ci wér-gi-yaram baax ci wér-gi-yaramu mala yi baax itam ci àll bi fexe ba nga xamante ne garab yi suuf si ndox mi sell te ñu jox ko ñi nga xamante ni mooy suñ ñañ ñëw ëllëg fekk ko ci anam yoo xam ne yu mucc ayib loola bon tey moo tax ñu am yaakaar ne nguur gi gunge bii mu tàmbali di ñu gunge dana ko wéyal te dana ko gën a yaatal yàlla ko yàlla def euh, waaw léegi a ah, loolu lu am solo la ay béréb yoo xamante ne nguur gi moo ko def ñu koy tuddee domaine agricole communautaire yoo xam ne ay ndaw a fay liggéey loola dañu bëgg ñun nguur gi jël ay domaines yoo xamante yi daf ne yéen waa FENAB jagleel leen na leen ko su ko defee léegi xale ya fa ne jàngal leen nan la ñuy defee mbay mu sell te mucc ay topp leen ko saytu ko ba lu fay ñoree nekk loo xamante ne dana baax ci wér-gu-yaramu doomu aadama loolu ñun lu baax la loo xamante ne bu amee danañ wane suñu bopp dem nañ sax ba ñun mën nañu fexe ba nga xamante ne fañ yaakaar ne foofu la gën a jafee muy diiwaane waalo nga xam ne dañ fay bay ceeb ñun wóor nañu ne ci biir foofa nga xamante ne moom la ñu béyee ceeb ay garab mën na faa am ñu def ay garab na nga xam ne moom lañ day nga xam ne ka nga xam ne moom lañ ko dénk muy sayt na muy aménagé bu boobaa daf koy soppi dootuñ dekk yàq garab yépp door a tàmbali waaye garab yi fa la nekk fu baax waaye ñun ca biir fa nga xamante ne mooy fa ñuy bayee ceeb dañ fay yar ay jën yar fa ay kanaara la leneen ak leneen ba nga xamante ne baykat bi dina mën a am ceeb mën a am jën mën a am kanaara waaye itam yaxanal àll bi ba nga xamante ne ëllëg dana tax du am benn poson boo xam ne mooy dem ci ndox mi wala moo nekk ci suuf wala boobu mooy dem ci doomu aadama yi wala mala yi te loolu domaine agricole communautaire moo tax ñu bëgg lu yoo xamante ne nguur gi daf koy jox FENAB ne ko yar waneel sa bopp fii muy bérébu ay jàngale yoo xamante ne liñ naan ay daara jàngale mbay loolu nag ñun fi ñu ko sukkandikoo mooy ci la daan maam yi def ëmbëb mag ñi la ñuy tàmbalee ndax mag ñi ñoom léegi lépp loo xamante ne ñoo ngi koy bayee mu nga jëm ci léegi dañuy tàmbali defar ay jikko jom ngor jomb jomlu nangoo liggéey li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom fexe ba nga xam ne waxuma nga yéene ko doomu aadama waaye malay yi sax nga yéene leen jàmm loolu mooy am xol bu yaatu ba nga xamante ne doo def poson buy rey waaye luy dundal rek te ñun li ñu seetlu la nga xamante ne mooy mel ni liñ naan to euh, euh, euh, engrais chimique tubaab di ko engrais chimique loola ñu ne dafay dooleel suuf wala dooy dooleel gàncax du dooleel suuf de mën naa dooleel gàncax bi nag waaye ñu dañu gis ne engrais chimique moom dee na ba pare lu dee nan la mën a dundalee luy dund muy gàncax ñun dañu gis ne luy dund mooy dundal luy dund loola tan loolu la daan maam yi def moom lañu bëgg a roy te it suñ borom moom la def loolu ñun mbayum yàlla mooy mbay mu sell te mu ci ayib foofu lañ bëgg a jublu te maam yi moom lañ daan def jërë ngeen jëf